jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen leen ni ñu ngi nii tëdd ñu ngi nii tëdd papa dangay ànd ak man gis nga xale yu ndaw yi nii kaay waaw Malick gis nga xale yu ndaw yi sama yaram sax dafa daw kaay kaay ka faaw ma yee ci kenn faaw ma yee ci kenn eh jugal noo tudd waxal ma man noo tudd

Lamine. non kuy sa yaay laa wax. Lamine. Lamine mooy yaay. kuy papa. sama papa. Malick kooku dafa ne ci nelaw xoolal kii xoolal kii Malick xoolim sangoo xoolim sangoo ay ay ay kii tudd saaku gis nga ci biir saaku bi la dugg jógal noo tudd. Ah. noo tudd. man Mor moo moor nga tudd xoro fii noo tudd. Modou. foo dëkk. Saalum. ah Saalum. Saalum. kuy sa yaay. Xorja. ah. kuy sa ah. kuy sa yaay. Xorja Xorja. Xorja ah. kuy sa papa. Xaadim. Xaadim. am nga seen numéro téléphone. loo wut fii. dara. taalibe nga. taalibe nga. ah. dan mooy sa problème. طلع طلع ايه ايه خال ما في ايه نوتلو ايه تدل ايه ايه تدل تدل بعد تدل بعد ما سوف ده ما سوف ايه ايه, يعني إيه؟ خال ما في ايه no tudd xool ma petit petit xool no noo tudd waxal no tudd xoolal Malick kii ni mu toll kii il a l'âge de cinq ans à six ans sept ans kii dafa toll jugal taxaw jugal taxaw kii dafa toll ci dugg école toll ci jàng alxuraan gis nga. parents yi mel ni ko daw seen responsabilité bu fekkee sëriñu daara nga ko joxoon xamoo mi ngi lekk xamoo mi ngi naan comprendre nga kaay maali kaay kaay ci ñu ndaw ñi rek kaay xale yi xool tëraay bi lii rafet na ci réew mi xoolal gis nga nii dankali koo gis leen gis nga leen maali eh yeewu na waaye day def jikkoy saay-saay gis nga ko ni jugal yeewu nga xam nga li lay wax na nga def eh sigil wax ak man noo waxal fi noo tudd foo dëkk Gambi Gambi si ay num tudd si ay c'est ah? oh. sa papa num tudd Amadou looy wut fi dama daw dama daw dara nga nekkon sa sëriñ num tudd Mamadou Mamadou c'est ay fan la dëkk ci Gambi ak sa papa kaw kawur. kañ nga kañ nga ñëw fi kawun kañ nga ñëw fi. yàgg na de. léegi nag su bëgg ngaa dellu. Hmm? su la yóbboo di nga dellu. waaw tëddal tëddal tëddal tëddal waaye jugal noo tudd yow. Moodu. ah. foo dëkk. Saloum. mën leen a bàyyi kun laaj nga ni Moodu est-ce que Moodu nga tudd. waaw saalum nga dëkk fan ci saalum daaru sa yaay num tudd ami sa papa alaaji léegi looy def fii ah faax ah faax ci daara nga nekkoon waaw bëgg ngaa dellu waaw mais da ngay ragal boo demee xanaa lay dóor lan moo tax nga faax amoon jàng après ma ñëw doon jàng rek après nga ñëw jàng rek jaajaar faax daam la naxari waxal ak ñun eh daam la naxari. déer. li nga faax. dara. na nga defee. noo tudd. Boubacar. foo dëkk. Gambi. Gambi ci fan. wetu ñaabi sa yaay mi ngi dund ak sa papa. Mhm. nu tudd. Souleymane. ci Daara nga jóge Daara ji sëriñ bi nu mu tudd. Amadou. léegi la moo tax nga fàq ñëw fii. man dara dara. daam la naqari wala daam lu la metti. déedéet. léegi loo bëgg. nga dellu. Mhm. waaw. waaw léegi nga dellu Daara ja moo gën dégg fii fii fii wóorul lan ngeen fii def. fanaan fii rek. gaa yi gaa yi gis nga gis nga gis nga ni fa demee nii hmm? ku jur doom di nga yërëm mais lii solution lañ ci bëgg xale yaa ngi nii tëdd te xoolal alentour bi maale xoolal lii xoolal fii ñax yi lu ne mën na fee génne lu ne mën naa génne fii lor xale yi ah xale yi tëdd fii autorité yaa ngi leen di romb guddeeg bëccëg nit ñaa ngi leen romb guddeeg bëccëg xale yi tëdd fii duñ ci wax dara dañuy xool ba xale am problème aduna ñaan ay ni ay na sëriñu daara yi seen doom bu nu faaxee ah mënuñu ci dara parents yi ñoo wara juk jug xool nag seen doom ci lan lañu nekk saytu leen sëriñ bi yow itam bu fekkee mënul téye doomu jambur nga bayiko mu mu ñibbiwaat ci ay bokkam waye jël doomu jambur bu ay waajuram yakkan mu ngi daara ja tok or ko néew fa ñii ba gambi ñu juggé ba Mali fi li daw na yaram hmm? mais malik lima gëna soxal dama bëgg xalé yépp ñu interview leen ngir seen wajur buñu leen gisé mën leen def retour kaay ñoom ñëpp na leen yëkkati par benn kaay. noo tudd noo tudd. man. xoolal fii eh eh wax la ñun tranquillement dégg nga doucement kenn ëttul la kenn defal la eh toogal yow eh toogal toogal par rapport nga waaw dama sawte ñëw noo tudd. ma Amet. foo dëkk. Koupentoum. Koupentoum. an sa yaay. Koupentoum. la kenn dóoru la sa yaay mi ngi Koupentoum nu tudd. sa papa Mamor mom Mamor mbaw da nga nekkon ci daara wala waaw legui da motax nga daw ñew fi waxal rek xolal waxal rek solution lañ ci wut lan motax nga daw ñew fi dañ don dor lan nga def ban dor da nga mukul wala bah hmm? teudal nga defé no tuddu no tuddu abdou Abdou Abdou. lan Abdou. fo jugé ñew fi mm. Mbour. ah Mbour. mais Mbour serul Abdou ansay mouf yaay. tuddu sohna ansa papa. mouf ngi tuddu ablay ablay yow ci daara nga nekkon wala. waaw. lu tax nga daw ñew fi. man de ma la don dóor. do def ban dóor la dama yoroon woon ñëw ma tëboon dóor après nga daw ñëw fii waa fii est-ce que fii fii amu leen fi jàmm fii tam yéen a ngi tëdd ci mbedd mi lii dafa risqué ba ngeen ba ngeen a kër ga wala daara ja kër ga léegi loo bëgg waxal dama bëgg a dellu suñu kër waxal waxal fii sa parent dama bëgg a suñu kër waaw waaw ja bëggoo fàtte déedéet bëggoo jàng Malick xale yi man mat nan hmm? léegi Malick li ma bëgg mooy mag ñi nga xam dañ fee nekk ak ñoom tamit hmm? mag ñi nga xam dañ fee nekk ak ñoom faa ñu yee leen quoi bu dee ñaa sax ñu dëkk leen suñu micro wax leen tamit seen nekkin ak xale yi parce que nekk ak ay doomi jàmbur fii comprendre nga ñiy jugee Mali ñiy jugee Gambie ñiy jugee Mbuur ñëw fii ci xale yi toll ni ci aas bii nii coow li bari lool ci réew mi boo laalee daara ñu ni daara nga laal taalibe ñu ni sëriñu daara. ñun juguñu ngir yàq daara juguñu ngir wax ci daara amuñu xam-xam boobu sax mais seulement dañoo ñëw tey ngir wan leen xale yi seen dundin wan leen xale yi seen nekkin wan tamit li nga xam moo ne ci réew mi ndax fii ma taxaw tey di wax bëri na ñoo xam ñu ngi yor seen 4x4 yor seen njaboot ñu barkeel lool nekk seen biir kër di noos yëgu ñun ñu ngi rombi doomi jàmbur fii am na tam parents yoo xam ñu ngi romb ci oto yi di dugg ko xam ne seen i ngi tëdd fii loolu moo war nag suñu liggéey ñun dañuy jóg dugg sur le terrain comme ñu koy defee à fois wan nit ñi nga xam seen doom reer na leen amna ño xam dañu yaakaar sax sacc nañ seen doom def leen nak sudul non or que seen doom yaangi fi teud bu ñu xey dugg ci biir garage ñi dem geej di taxawaalu seen doom yaangi dund dem leen ngeen xooli seen doom yi joxe sa doom daara do xam ma nga fa do xam mi ngi dund mo xam mi ngi lek mi ngi naan te leer na ma ñi teud ñepp seen waju tay ji ñu ngi ñom ñepp sangu jamono ay sedd la ñi ñepp gis nga leen ben dara bi lañu bok xol bu ndaw bi saaku ci saaku lay sango ah li lepp normalul rafetul jekul ci réew te buñ ne réew mi ñu réew réewum teraanga la réew mi réewum réewum barkeel la réewum réewum alxuraan la waaye alxuraan nag ñaawul nii tamit nan ko waxta dee nañu jug nag jàppalante suñu biir xam naa maal da nga ñëw ñëw leen kaay leen kaay leen kii moom suma ma juumul magum jëmm la ku baax salaamaaleykum ku baax saa jugal toog góor gaa ñu ngi lay nuyu. waaw. noo tudd. Ama Cissé. Ama Cissé. Ameth yow magum jamu nga fii tadi pulang lah? lan la. dara. foo jóge. maa ngi Casamance. Casamance. Mingfo? Wah. ngi fa. waaw. sa papa. mi ngi fa. Saay tudu. mu tudd. Alassane. Hmm? Alassane. sa papa nu mu tudd. Alassane la tudd sam papa. Aysata. daara nga nekkoon. non non nangu ma si daara de. lan moo tax nga ñëw fii. dara. mbaa xaman sa yaay sa papa nekkuñu si jaamu guddi ñu ngi am xolub ñeewante duñ xam yaa ngi dund duñ xam maar day taale dee nga est-ce que fii jekk na. tax nga ñëw wax ko rek ndax da am solution léegi nga génn ci dimension bi nekk si leneen wa ñun ñuy wax ak yow ni nan la jàppale nan def lu ñu man lépp waxal lan naqar yi ba tax ngay dundal wax ko ak loo bëgg nga wax ko lan la. dara hmm? dara. kon yaa am envie ñëw tëdd fii. Hmm? loo bëgg. génn fii kay laa bëggoon. génn fii dem fa. liggéey. liggéey loo bëgg a liggéey. moom kay baax na. non liggéey am nga choix nga ni lii laa bëgg a def. bu ne nga liggéey nga bëgg ku la jox liggéey di nga liggéey. waaw ba nga menuisier. menuisier maanaam. menuisier mooy defar ay lal defar ay bunt wala mécanicien oto ba nga lool. waaw ban nga ci bëgg ci ñaar yooyu. see defar lal. léegi ñun mën na laa yóbbuwaat ba say parents. waaw waaw. amul problème tëddaatal kon tëddal jégalu baax kaay kaay Malick kaay ñoom ay mag yi moom. waaw ñu ngi lay nuyu. noo tudd. man Omar laa tudd. ah Omar. Omar foo dëkk. Pire Pire. Pire man Jama dëkk man mi di wax ak yow ci fan nga dëkk. Saya ay nu mu tudd. kii xari. waaw. lan moo tax nga ñëw fi. ñun duñ ay faxumaan ñun dañuy dañuy liggéey man mene bar laa damay liggéey maçon waaw kii kii bàyyi peel peelam mu ngi si kaw. sama waa ji. ah yéen iya, da ngeen a amul daal. da ngeen amul. da ngeen amul daal location. Oh. dem liggéey. ku leen ku leen wutal leen di ngeen fa waaw ah. waaw rewmi mi tollu ñi ay doomi gor yu set wicc lañu ki pir la jóge and ak doomu ndayam bi teud ay mine bar la wax dañuy liggéey seen peel yi ñu man nga ma won seen peel ha ah? gis nga seen peel yi ni liggéey maçon ak mine baru mi ngi fi mais nak xam nga xaw na li ni am ci journée mu ñu ci fay fi nek ak baye tamit dekk ba ñu leen ni xaar ci ay teranga yo xam dañ ko wara defal seen wajur ndax dañuy ñëw fi norani waye tamit euh, nan wut solution rek. ndax du ñàkk tamit ñii bu leen jàppaleen jox leen ab pantre as gor di leen ko fayal 7000 sax ñu fay mën a fanaan bu ñu xëyee dem daani seen doole ndax xale yi nga gis ñu tëdd fii yëpp tamit hmm? dañuy yaakaar mag ñi leen fi nekkal mag ñi téye leen fi ñuy dañuy dem sax ba njorti ñoo leen di jàngal 15 or que loolu mais xëy na seen i jafe-jafe ñoo ñoo bokk ñoo nduroo moo tax ñu ñu ñuy kii mu mel ni am pagaay xale ñu ngi ci biir garage bi gis nga ñu ngi ñii dañoo bëggoon a si gis ñu dëpp leen nii maa la jël leen gis leen dañu warona fanan sini si ni ñu gis nga dañu tedd sini nii mais pour ñom sax dañ leen di door wala dara comprendre nga gis malik xol gisa leen. no tuddu man yangu wala dar fo dekk man Zian soro dëkk. sa yaay tuddu man sama yaay Xadi. sa papa. ah sa papa nu tuddu sa papa elaz elaz léegi yow lan moo tax nga ñëw fii daara nga jóge wala ci kër nga jóge daara laa jóge li wax nga fàq ñëw ah la nga fàq ñëw man daara laa jóge da ñëw fii ndax lan ah. ndax lan wax nga fàq ñëw dañ maa yóbbu daara moo tax te bëggoo dem daara waaw léegi ñëw bi nga nekk fii tamit est neex na say waajur neexu leen de neexu leen de doo jéem a ñibbiwaat kër ga Engaañ Engaañ. boo nekkee fii nii boo nekkee fi solution du am comprend boo nekkee fii say waajur dañuy yaakaar ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci lu metti ñoom duñ nelaw duñ am jàmm te àqu njuróol dafa foor est que tamit jotul nga delluwaat kër ga. Engaañ bëgg naa Engaañ. su la jàppalee nga dellu kër ga di nga dem toog kër ga. nan la bàyyi nga dem tëdd dégg nga seen fii nag buñ tax mukk ngeen di bañ a tëdd si fii bu tëdd jotee comme ni ngeen fi doon tëdd see ñëw leen ngeen tëdd bu leen faax bu leen dem fenn man dinaa ñëw dina indil lekk dina indil naan dégg nga demal nga tëdd Malick gis nga mu mel ni loolu lañ fi mën a tamit comprendre nga gars yi mi ngi noonu booy xool ilee guddi na gisoo une heure une heure papa Malick gis nga de aada godee affaire baa ngi tey sama xol dafa fees ay xale ndax kenn ku ci nekk rek am nga doom ay xale yu ndaw nekk ci mbedd mi tëdd comprendre nga te xoolal am na ñoo xam dañuy fëkk xale yi jàngal leen bon am ñoo xam dañuy fëkk xale yi di leen jàngaloo sàcc am ñoo xam dañuy fëkk xale yi di leen sàkku loolu lépp am na ci réew am ñoo xam dañuy jàpp xale yi di di dog seen seen seen baat ak seen bopp rien que pour am ndombal tànk ci réew mi gars yi loolu lépp mi ngi fi te xale yi dañ leen a war a aar ana mag ana ñi nga xam ñoo nekk ci boppi réew mi te war a aar xale yi ana ñooñu xanaa dañ fee nekkul am dañoo gisul xale yi dund bien vrai que ne daanu dajul suuf mën ñoo dem fépp mais tam nañu jóg xale yi nga xam ñu ngi tëdd ñii nga jóge Casamance ñii nga jóge Gambie ñii nga jóge fune bàyyi seen i wajur seen wajur yaakaar nañ sax ñooñu gédd nañ àdduna wala ñu yaakaar ñoo ngi ca daara toog ndaxte ñu ngi fii ñun ñii ñu leen jàngal guinze ñii ñu leen jàngal sàcc et tant d'autres kon nag il est ñu jug nag wut beneen mesure toog ci télé yi di wax toog ci rajo yi di wax toog ci bulo yi di wax am na lu ko gën nun ñu jël suñu ndaw yi tey yi nga xam dañoo nar a na sax ñii nga xam mooy fondement réew mi ëllëg ñu jéem a def ci ñoom dara loo xam ne si au moins ah dina mën a tax réew mi ëllëg ah ëllëgam xam fa nu jëm ah nan ibbi ay centre xale yi ñu jëm leen faa dugal jëm leen a jàppale maal loolu la la seen soppe sekk ndaanaan ak caméraman yi ma àndal Malick Laye Diouf Papa Sow Aada Gore ci lumière bi ñu ngi woon fii ci buntu garage ci précise découverte wan leen li nga xam mooy tolluwaay réew mi mbokk yi loolu leen loon képp ko xam nag yaa ngi sar émission bi ci numéro boobu daw ci ba écran bi boo ñu jotee nan jéem a indi fi xale yi nekk nga xool fi sa doom jërë ngeen jëf gaay ñu jox leen dig daje incha allah fi ay bés ci yeneen découverte bye bye jërë ngeen jëf